mag ñëpp ku ci raw mu ngi jaar ci yàlla ak yonent bi mooy alquran ji ak tëgg yonent bi kon bu kenn dox sa digganteeg yàlla ak yonent bi dëgg la buñ la waxee robinet ngi forage ngi nga dem ca forage ba faw boo yeggee da nga fekk ku la fa giide xamal la nan lañu koy jëfandikoo ndax faw nga am ab sëriñ bu la xamal lan mooy alquran ak lan mooy sunna boo nekk ci téere rek di jàngat amoo kenn ku la giide li ngay yàq mu xëpp li ngay defar